leen si biir limametti point com comme ni ma koy defee semaine bu nekk suñu biir émission bi di limametti show xam ngeen ne semaine bu nekk ak ki may dalal tey nag nee naa leen comme ni ma koy faral di waxee des fois limametti day jóg jeex xool koo xamante ni gëj nañ ko dégg wala gëj nañ ko gis wala sax mu nekk si actualité bu ko defee ñu daal ànd ak moom mais comme moom dafa nekk nit koo xam ne tabaarkàlla macha ah la ñu a waxtaan ak moom muy Djibril Diop nga xamante ne tabaarkàlla macha allah ku ko xam xam ko si baat yashrif Ousseynou Laay liiral nga sawtik maam ndey fi taw nasaraan baa ngi wuyoo lay Matar Laay Mamadou Matar Laay. yéen a ko dégg noonu maamu ili maamu yaay borom yoo fi bay laay woo taji boo ndaye laay. muxaddis ibnu khalid daw dunduy fii ci Cambérène diggal maam Isra Seynu lay nasaran sangi wuyoo lay Matar lay Ndey Mamadou Matar lay lii laa wax. macha allah macha allah nee naan autoraay bu jube gadde kon de ngeen ko non mu korne kon ken do ko presenter waa ji bi foo nekk. laqatu di liggey dajek wàllu yu bu nekk surtout Seydina Limaamu ma def sama album ba pare ma war a mu jox ma app app bo bam mu jotee moo fay kilib ba moo jënd sañse yi jox lay jaañ na ko jot na génneel xam nga maanaam euh, jaan bu ndaw bu lëloo bu génnee ñàngoor lañu koy wax te maanaam lu ñor tab bi moo gën lu nu gësan mu watt te musique léegi dañuy umpale xew ak ki am talent doxal fa yow dañuy umpale xew ak ki am talent te man damaa bëgg bu nuy wax musique gu Sénégal su ne un ba cinq cinquième ba doon man ci kàttanu sunu borom dama lëlu woon rek di liggéey taxawaalu ma lateew ma toog di liggéey sama liggéey mais su sottee dinañ xam ne lépp dëgg la. <laughs> ay te dégg ngeen ko noonu kenn dootu ko présenté moom Djibril Diop Djibril Diop la ñu àndal tey tabaarkalla allah mu nekk koo xamante ne ndaanaan la ah comme ni ñu koy faral di waxee dem na béex si toj fa def na single ah bàyyi laay boobu la def na ànd naa tamit Aïda Samb gu nekk gaaw la googu moom itam def sa relation avec Bouba Ndour hmm. euh, c'était woon album si buur ngeen doon def ngeen doon ngeen doon def nga signé woon ak ñoom contrat album wala signé wu leen woon contrat parole la woon moom après def ma oo <clears throat> après moi naa sax moom loolu ne ma dañuy signé deux ans xaw ma trois man leen loolu dafa bari waaw parce que man boobu du question ndamu man xam naa li ne ci man quoi xam naa li nekk ci man buuba producteur la man la yàlla jox baat pour may way ñu ñu ne dañuy signé un an ma d'accord ñu jox ma benn contrat boo xam ne dangay dem bu la doyee xayrun ma liir ko ma dem woon ko sama benn grand Mansour Mansour Fall ma yóbbu ko ci laay Diagne tamit te avant boobu tamit ci laay Diagne laa nekkoon laay na ma garaawul ñu waxtaan après ma d'accord léegi bi ma ooyee studio ma def artiste mi ngi dugg studio di def trois mois sama benn jour ci laa defee mois morceaux benn jour bi ci laa defe lépp pare ma toog di xaar. xëy na yéene bu bëri bi mu amoon ci moom xam nga yéene bu ëpp tamit dañuy di cat xam naa loolu moo ko dal sama diggante man ak buuba mais buuba ku am sama yërmande la ku am yéene la ci man koo xamante ni tabaski jot mu ne allo foo nekk fekk ma sama kër yaay jooy ketu xaalis tabaski jox la sa jox la kooku bañu la barki yonent bi parce que duma ko critiquer du ma ko xarab man maa taxaw ne ko ba dara lee dara ñëpp daw ma mes ni menteng yow laa gisoon kon bu ma ko bu ma ko xarabee déet waaw wax nga wax ji man du ma ni waaw ba pare na déet su ma grand la su lépp la te xoolal ci kattanu suñu borom tôt ou tard man ak moom dañuy jóg. non moom moom nag luñ ko mënti waxal bu wax nga sama xarit la <laughs> ma moom ay xarit lañu mais moom dafa gëm talent franchement macha allah pour bu liggéey yow rek faaw nga am talent bu nekk ci yow nga xam ne moom da koy yee. su ma liggéeyul ak buuba tôt ou tard dinaa liggéey ak Ibou Ndour te liggéey ak Ibou Ndour mooy liggéey ak buuba liggéey ak buuba mooy liggéey ak Ibou Ndour te seen mag Youssou Ndour Youssou Ndour maa koy daaneel de. man la bëgg li mu waaw fii rek naan kii ah. mais Youssou Ndour man maa koy daaneel gars yi nañ bàyyi man maay daaneel Youssou Ndour. <laughs> Ah, yow yaay waykatu Youssou Ndour maay waykatu Youssou Ndour man maay jeune talent bi ñëw mu def ak man featuring bi ngeen ñëkkee jakkalo bi nga né der lu suñu lan la wax dama tit man ma mom waxul dar man dañu après dañu ma décourage néma néma nak modesti c'est <laughs> c'est seen seen ya a jàkkaarloo yaa nan la démé won sama ñëkke jakkalo ak mom ndaysan maa ko gis bobu ci concours xex ci biir bi bi mi joxé eh, ki résultat yi ndaysan mu kotuma bi mu ñëwé mu wax mu wax tuddu Jibril job ñu kottante man ak mom fofu may sentir ndaysan après ma tal ko suma loxo ko grand ñaanal ma mu ñaanal ma yàlla daf ma gaño ko mu daggal ma bii avion moom moo ma njëkk a dugal avion moom Youssou Ndour maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla na ko cat seexlu ci barke salaatil fatiha lu mu song yàlla na ko daan moom naaru ndey soxna mbu boobu nit ku baax la nit ku simple la barke Seydouna Mohamed conseiller ma ma def sama clip maam li maam mu ne ma décourage dina baax ñu def ñuy def fitir man ak moom mënu na ma tital mais bo déggé ci bir way bi sax dama tit ba ko yaay rakki njaga di magi buba ndax tiit ndax jàkkaarloog moom yomb ak mom jox ko cër xam nga star bu mag ki nga xamanteni moy mooy monde bi nga jàkkaarloog mom mais nak dang koy jox cër ba da ngay tiit la rek mais nit ku bax la ma ngi leen di big up di big up wa télé ba yépp parce que man jigé diw ma leen man bima gagné concours xex ci buru la télé bobu ubi ma am fa ay xarit am fa ay nit néna la tôt ou tard buuba dina def sama album bi àdduna bi du coow. wiiri wiiri wiiri jaari naa ji gannaaw da ñëw <laughs> da ngay ñëw da ngay ñëw incha allah di nga ñëw man yaay suma xarit man ngay wër man yow laay wër dina baax. réeroo amul daal ñàkk waxtaan am soxna si yal na la jik ci barke yonent bi bàyyi Zeyna bàyyi Philippe yal na yàlla yokk xéwal gi di la ñaanal waa nit ku baax la wax dëgg fa yàlla nit ku baax la samay doom day dañ koy da leen doo woo téléphone. seen petit gàll bu jotee mu ne leen ñëw leen ma jox leen ay bee xam nga boy yi su ma demul duñ mën a dem looloo tax te fu may dem maak ñoom ñooy ànd. looloo tax mais nit ku baax la. billaay wallaay donc 2011 ba léegi album jotul génn nga jot a def ñaari single yooyu muy maam li maam ak bi nga diyoo ak Aïda Samb. boobaak léegi nag nga tëju nag. waaw jibi kenn xamatu si mu nekk ñu naa jibi fu mu dem ñu naa dafa dem immigré ñu naa nangam ak nangam boobu jibi fu mu nekkoon. immigré sax ñoruma parce que bi ma Youssou Ndour yóbboo Bercy man man man 2010. bersi dafa tas may taxaw di signer ay orthographe. dedet car bi yobbu artiste dem bama ma taxaw ci Paris du joy war ka jaañ London moo for yobbu wat ma fof suma suma su bodu ñoron bobu lay daw ta bobu ma ngi sama papier. loo doon jooy. mais mais ñi ma fi indi xamatuma fan la jëm ma ngi fay sogo wacc xam nga ma taxaw du joy war ka fekk ma fa ne lan la man ko man ñum ñi ma yus ndu daf ma fay indi won mo wara dem hotel bi nekk xamuma fa mu arrêter taxi ak simplem yobbu ma ba fofu moom war ka muy nit ku bax ma ngi koy ñaanal. Mhm bobu batay tey defuma dara mais ma ngi tok sama studio ma ngi tok dem studio lay jagn di fa liggéey Assane gey lay di jappale ci moyen bu ne ñëw ma artiste soxla bu ma am suma waye ba paré momay fayal limay way fayal ma clip bi jëndal ma ay sañsé surtout seyna limam bobu mang koy ñaanal yalla nako yalla dolel ci barke seyna limamul Mahdi yu ma ngi sama ruq di liggéey am lu ñuy waaj ñi ngi waaj bu baaxa baaxa baax ñi ngi bu baax yalla nu yalla mussel ci ak joxogn bu ay ak reetaan bu ay ak aay na bu aay ci barke yonent bi ñu ngi ci yoon bi Petaw ñu ngi ci yoon bi uh-huh. ñu ngi liggéey ñu ngi ci yoon bi barke Seydouna Mohamed. yàlla na yàlla mottali mais léegi ji bi 2011 ak léegi xam nga yàgg na. 7 hmm. ans ah. hmm. léegi nag nga gis musique bi dafa fees dell comme ni ñu koy waxee musique dafa neef. Hmm. est nga foog ne boo ñëwaatee ni nga amee woon place noonu ak départ yaa ngi yaakaar nga ko ba léegi. laa ilaaha xale yi musique la. té ndaw yow ndey peta bu ma la toppee damay wax té bëgguma wax. ah déedéet waxal fii lu ma métti la. xale yi ay waykat lañ. waaw mais fasu yagu tukki mo la gëna xam dëkk bu bari ngooñ. dëgg la da ngay top ci fas wo yagu tukki. Mhm. top ci ginnaw bu ngoñ manké mu ne la ñu dem bërepp sangam am na ngooñ. ngeen dañal di dem. utuma succédé utuma xew. nee naa la musique gu Sénégal damay ñaan yàlla bu ay ñoom Thione Seck demee ba teg lenga yi ñu ne juróomi booy yi ñuy jox euh, musique bi Djibril da ciy bokk heure bu ma tëjoo maa ngi liggéey dama black dama toog ak Bouba Ndour mu ne ma musique bul way ñu ciy gis sa biir way ñu ciy gis Youssou Ndour wala ca biir way ñu ci gis Abdou Guité Seck te musique gu léegi harmonie bi ngay dégg ci kii moom ngay dégg ci kii harmonie bi ngay dégg ci kii moom ngay dégg ci kii ay copie la ay copie talent daa gën a wóor kalaan day petaaw. mais yow kalaan bi ñor na la trop ah. parce que kalaan moo fi am mais bu ñuy dox ci talent yëpp bu ñu doon xool talent rek am na ñoom du ñu teg seeni morso wala Sodav BSDA toog bu artiste dafay benn affaire ñu xool ko xam wax war na génn wala warul génn kon ñu dul way dina bari torop barki Seydouna Mohamed. kon riirandoo bee fi bëri riirandoo bee fi nekk nii rek ak xew. ut sa juróomi xarit rek ñu gaddu sak ak sa ñenti jigen rek def esaf kërëp kërëp ñoy ngay def ben affaire gaay ñew jënd affaire mais buñ doon xol talent deug deug deug deug deug ñi dem bitim rew wala ñi dem gambi di def arsa ambulance dina bari. tax Ndiaga Mbaye neena moytu len yaaman ñi fi nekk ku ne andaka bu saf. ku barki xolal man damay genn ay kilifa diine sëñ mam Mor Mbacke mang koy nuyu soxna May Galas mu sëñ fallu mang koy nuyu ay kilifa diine. buñ ma téyee tey soxna May Galas mu sëñ soxna May Galas moo soxna Serigne Mbacke soxna loo maa ngi ko gërëm borom daaru ma si way bi ma way maam li maamu ci lañ ma téyee ba tey nii. sama morceau maam li maam heure boo ko tegee day mel ni tey nga ko rek loolu nag mooy liggéey mais dangay ngay gis léegi artiste génn benn affaire un mois ñu bu yóbbu sa kees ga. loolu buubu moom ma ko jàngaloon maa ngi koy sant ci loolu ak patience. Mm-hmm. musique du course barki Seydouna Mohamed. course de vitesse waaw du course gisoon nañ fi suñu grand Seka. Mm. benn morso moo ko taal Samba Allaar. Seka benn morso moo ko taal morso bu naan Samba Allaar. dégg naa Thione Seck way na ba sonn moom moo ko doon wax. Mm-hmm. mu ne morso maacoom bi moo ko jaay. ci la am li am. Mm-hmm. ku si nekk dangay am morceau morceau futis mais wax ma léegi ñi fi génne rek ay ñi ngi naan ñoo xew ñoo xew mm-hmm. kan moo fi def morso bu bu tax ñu naan futis. nee ma kii la rek. déet man kay yow laa koy laaj yow miy way. non man damay way mais man positionné wu pour wax yéen xam ngeen yéen yéen a gën a xam <laughs> yéen yéen a gën a xam rirandoo bi rek ak nit ñi dajale fee ay nit ñu naan boo waxee fan sami dañ may mere mais xam nañ waykat yi ak ñu dul way barki Seydouna Mohamed dañuy dem studio ñu defal la benn affaire kii la ñu ne ak a a way. da nga leen di seetaan télé sax des fois ñu teg leen seeni live mais musique bi day ne fii ñoom ñu ne Pout wala Sébikotane musique bi ne Ndakaaru ñoom ñu ne fële. la preuve en est que koo si ne defal ma acapella mu ne <coughs> sama baat. <coughs> dama <coughs> soog a yeewu man 5 heures du matin laa dañoo mënul. mais du mën nañ sax mën nañ mais dama ni la dama ni la yàlla ak yàlla dunu benn musique booy billaahi duñ dab ay Thione Seck duñ dab ay Youssou Ndour wala way ay Thione Seck ba tey gars yi dañ koy déglu. Ismaïla Lo xoolee lan woyoon ay 1973 ba tey dañ koy déglu te musique boobu sax moo gën a kii mais léegi marimba ngay topp gëj nga topp ci. xam nga jël benn gaam jël benn gaam ñu naan ak a mën a woy xam nga ut say kii ut say animatrice ut say animateur. waaw ay ut ay nit ñu kii di la boole gars yi noonu rek la de mais ku si ne daal xam nga ku la mën. bi allah dootu ko amati boobu moom. ah nañu xaar yi ñëw bokk tabaarkàlla macha allah. maam li maamu nii. moo gën a piir la. da nga ko biisoon da nga ko biisaat. biisaatu ma ko de. dama bindaat beneen morso boo xam bokkul ak moom keroog bi ma koy clip fii. ci euh, wakaam ci jumaa jooju ci suuf. booy clip da ngay fay. mais bi ma nee bër gaa yi déglu morso bi dañ ma ko may gratuite. Hmm. alhamdulilah waaw. sant yàlla bu baax a baax a baax maa ngi sant yàlla bu baax di gërëm laay jaañ borom LSD record suma xarit boobu nga xamante ni moom tamit daf ma jël rek di ma jàppale dina yàgg dina neex incha allah dina yàgg dina. ayca jibi moom dafay politique wala politiqueul. <laughs> non man du ma politique du ma politique mais ku ma gis ngay def lu baax daal dinaa ñëw ànd ak yow barab bi ñu toog boroom barab bi sama xarit la muy Ousmane Doy da doon def benn affaire am ñu nekk ci estafam omo ma ñëw fii damay mu may jappalé dima conseiller dima wax yu bari gis nga dal xam nga lan moy aduna artiste. na nga garder sa digne ak sa personnalité bu la kenn di fëgg si bureau wa bul dem di fëgg ci kenn bul bul bu la kenn di xol di gis ci yërmande ci yow. Uh-huh. amal cër joxal ñep cër am ful la sa bop gëm sa bop lolu moy aduna barki que fi yalla rek a fi nekk amul nday amul bay jurul kenn te kenn juru ko kon. bu sa àjjuma jotee boo gëmee sunu borom ku sa àjjuma jot da nga koy julli. li doon wax li la gën a métti sa àdduna lan li ma gën a métti suma àdduna mooy bu jour bi sama yaay feebaree tëdd sami municipal fii aw ma 100 bu ma ko jëndee paracetamol ba ni muy dëddoo àdduna loolu ma gën a métti sama àdduna waaw loolu moom gën a métti sama mais sant rek alhamdulilah te tamit bëggoon naa mu fekke suma njariñ quoi mais yàlla nag zil arsil majidun fa'alun lima yurid yàlla mooy def lu ko neex. Mm-hmm. waaw dama koy sante mais dañ dañ ne bala ñoo xam sa ndey li mu liggéey sa kër baay mu dëdd mais maa ngi sant sunu borom di ko ñaanal taalibi sëriñ Babacar si boobu ko yàlla xaraa jana barke salaatil fatiha ji bi ngay tàggatoo macha allah émission bi c'était émouvant neex na njëriñ jóge na ba pare tabarkalla macha allah. li may tàggatoo mooy sama fans yi ñi nga xamante ni bëgg nañ Djibril Diop li may def neex na leen maa ngi sàkk ci ñoom ñaan leen di wax nañ ma xaar ci kattanu sunu borom maa ngi ñëw ak beneen façon. maa ngi ñëw ak yeneen feem maa ngi ñëw ak yeneen mélodie ci barke yonent bi yal na nu yàlla musal ci cat ci barke Seydouna Mohamed nañ ma xaar bu baax a baax a baax namm naa sama bopp lool lool lool lool lool waaye. ayca <laughs> dégg ngeen ko noonu moom Djibril Diop la ñu àndaloon borom aji boo daay laay moom la ñu àndaloon tey suñu émission bi di Limametti Show xam ngeen ne semaine bu nekk ak ki may dala kon dama leen dox dox daje rek ba semaine bii ñëw ñu xoolaat beneen place bi gën a rafet si Ndakaaru daal di fay toog jaa jëf maa ngi gërëm sama darmanko bi Amar moom Mbaye tabarkalla macha allah jaa ngeen jëf